nag li ko wër ñi ko doon xaar ana maire dem nañ tey ñu bi maire yi tiit bay bëgg de ana bi añ bi jeex na yow foo nekkoon foo nekkoon muñ rek dara desu fi añ bi ngeen jeex na dara desu fi nii yoo xam ceeb bi jeex na wax nañ la ko yow tam foo demoon boo bëggee lekk da nga toog mère kii damay nax wala dëgg la. ceeb bi jeex na tàkk. jeex na dara amatu fi. xam nga ba pare gisoo lii xoolal cin sama jàmm yow xam naa ne eh, ku ma bañ di nga xam ah xanaa ku ma bañ. bu bëgg a dee. ko yow ku iñaan nga yow programme bi ma doon programme yëpp fekke nga ko. man yow kay. lépp xaw ma ci dara laa wax xam. doo lekk de. mais man dañ doo lekk mu naan fekkee maa la ceeb bi ñëpp ñëpp laa ci boole ki doon tay ceeb bi ki xolli pombiteer bi ki xolli woon patate bi ki xolli ñàmb ji ba ki nga xamante ni sax moo ci def poobar ñoom ñëpp yàlla sama àq dal yàlla bu mu rees. jërëjëf jërë ngeen jëf wut daala le dëgg la dala leegati talaata tëddale de. ah bitim réew la boole si talaale leegati tanda buddi la boole ngoole bu talaale de bu leere bu laala jàpp jàpp la moole ngoole derli le leele lee da mongali fu daala dara de bu dere de पुत्याला दारात उळे पुत्याला लेखत त्याला माझ्या लाल पुत्याला नंदाच्या लाल नंद झाले पुती गेले पुत्याला नंदाला पल्ल्याने चले झाले daalaat wu ne ante de wax dëgg yàlla sekk moringo ne lii yëpp teguma la ko wax dëgg yàlla waaye nag ah dama lay baag yàlla. wax dëgg yàlla sama xol sedd na trop. sama xol sedd na trop. kontaan naa lool. xeeb naa ko trop. am kay <laughs> jërëjëf waaye jërëjëf Seck jërëjëf ci des. salaamaaleykum Diall. min law. ah <laughs> law eh, ñëw nga. waa kay jërëjëf. waa toogal. laal. ngu daala bu talaala di talaala di dere. wa daala leega bu tënale de. ndi daala di dab moone lele butti leleel di leera jërëjëf jërëjëf mu jaala daara duree ah moone mm. leera Fat Seck ko yónni <laughs> wa daala le dala wawa wa butti daala le butti naare mhm. ngooda di dalaa di tëttale bu laala tëtt bu daala tëttalal la leera di daala bu daala lii ndala dalaa tëttale wa jaala daara duree ndela wadd wadd kaas <laughs> mu daane be kaasa waddu kaasa jërëjëf nangu mu daane tala tana ne le mu daane tala derar bu inde ne ne bone tina wandi de le andi xaw ma ci dara laa wax nii ngeen di def bu ñu leen joxeloo euh, teraanga ci digg géew ngeen di sàcc xaalis yaakaar na nit ñu gisuñu leen yow njëkkale na joxe léegi ñeenti junni nga bëgg a jël ñaari den denc ko te ñëpp toog ñëpp yaakaar yow nga bëgg koo sàcc doo rus doo leen ba seen yi ngeen di dégg rek li ma la wax dama laa jox lu xew dama laa sant nga sama jox ki nanguloon samay teranga mais waxuma la nga di ma sàcc. ah mais ma ko. wante daal bu daane bu daane gudd da dee ne bu da dana bu da dana dana direct. waaw loolu groupe njëkke. ba daane moo ni. groupe njëkke ñoo joxe ñaari junni. wanda mburje jalande delene mo jaane daarade beddele ten jabaru mansour wande dele sama goro ɓoore delede fof sama goro ma dox ñaar téeméer mu jaani baax na jàllal ñu ci des ala dalalare buttalalandalandala ala tatalatatala jërëjëf mu dele mu taalee joxe na ñaari million dala lomb lomb lomb lomb. loo bëgg joxe ñaari million. bu jaaree de. <laughs> Ah, law la cat. te de ko law la cat ñëw ci yaay ji. bu jaaree ba ne dëpp ko. benn mbubb. bu jaaree leer leer leer. ñaari mbubb ci ndey ji. bu jaaree dëttene ne ne. wuti ne bottene. douze yaar vax ci ji. ay dëndooy bu jaaree dëndëndël. ñaari douze yaar ci ndey ji ajo ndooy mu de ñetti douze yaar lala daara dure ñaari junni lala laala dure ñett ñeenti junni mu jaane puute daalen ñëpp puute daala dure waaw waaw mu jaane dëddale